ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey wàllu xew TV ñoo dellusiwaat ak yéen ci beneen vidéo vidéo bi ñuy def nag c'est une première c'est la première fois ñuy interviewer nit pour mu partager ay xalaatam ak li mu xam ci benn affaire boo xamante ni si mi ngi koy utiliser bëggoon ci yee ñëpp ñi nga xamante ni si mi ngi ci mu jëm ci wàllum tabac cigarette donc d'abord li ñuy njëkk def mooy dañ leen di bàyyi ak moom mu présenté wu. comme ça ñu dikk mën a wéyal waxtaan bi donc bismillah <coughs> waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum man maay Boubacar Diallo nuyu naa waa Sénégal ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam vous salue encore au passage le reste du monde bon comme ni ko waxee rek bon noonu la dama bëgg a véhiculer benn message bi nga xamante ni ci wàllum cigarette personnellement man moom koy def moo tax ma bëgg wax ci loolu nag pour ki nga xamante ni mu ngi koy def mu war ci jëriñoo tuuti rek ci samay conseil di may bëgg a jox. d'accord kon daal vidéo bi maanaam vidéo da ngay joxe conseil pour ñi xamante ne ñu ngi utiliser cigarette. exactement loolu la d'accord léegi avant ñuy dugg ci conseil yooyu noonu première question bi ñu la bëggoon laaj maanaam mooy yow lan moo la dugal ci tuux cigarette. <clears throat> bon c'est lan moo ma dugal ci tux cigarette c'était en 2012 jamono boobu noonu euh, maa ngi woon def sama première terminale yàlla def nekk euh, ma def baccalauréat bi échoué ba pare ma dëgg nag par rumeur yi nga xamante ni boo amee ay certains soucis bon cigarette bi boo ci nekkee xëy na da da lay wàññil moo ma dugaloon ci cigarette mais dama dem ba xam ne. carrément du lépp lu ñuy wax cigarette bi boo ko tuxee nga lay permettre wàññi lii wala lii lii lii lii dara du dëgg. d' accord kon yow daal bu ñu comprendre bu baax li la ci dugal mooy danga amoon ay problème nga dégg ñu ni boo ko tuxee da lay wàññil say problème moo taxoon nga dugg ci d' accord kon mën nañ ni sa conseil moo baaxul ok léegi bu ñu jógee ci loolu euh, bi nga ko commencé di tux ba léegi sentiroo ni am na amul dara lu mu def sa wàllu wér-gu-yaram. bon moo tax <clears throat> instant bi nii ma ne carrément il faut ma wax ci dara. Hmm. ndaxte man depuis ma commencé ko tux ba léegi chaque jour que Dieu fait damay xam ne je me sens de plus en plus faible. ci wàllum santé en plus euh, ci lépp li ma doon def daal instant bi nii je suis faible maa ngi nii fu ma nekk nii sax yenn saa yi sama xol bi def daf may métti surtout tey nag surtout la semaine bii nii daf may métti de trop. mais xam naa ni loolu yëpp cigarette bi moo ko waral bu fekkente ni mënoon nga daw boo ci nekkee dootoo daw dox mënutoo ko lépp li nga xamante ni lii activité physique la boo ci nekkee tuuti rek da lay sonn moo tax cigarette bi en tout cas man damay déconseiller ñëpp. d'accord kon daal yooyu mu ci nekk comme li ñuy wax rek la mu saf ko xam ma ci ko xam. comme yooyu mu ci nekk yow yaa mën a wax ni baaxul kon képp ku dégg lii rek dina xam ne ni cigarette baaxul même ñi koy tuux sax man naa xam euh, jàpp naa ni xam nañ ni baaxul mais parfois dina tool nga utiliser loo xam ne da ngay dem ba da dépendre ci loolu boo ko jëlul rek doo doo nekk est-ce que yow parfois dina la arrivé nga tey jii nga toog bañ a tuux rek après mu am lu mu la manqué wala yu mel noonu waa loolu am na ndaxte yenn saa yi fekkent ni nekk naa fii moom nekkuma di tuux bon wax dëgg yàlla nag bu ma nee lii daf may métti wala lii loolu noonu aw ma mais c'est que à chaque fois damay nekk di nelaw rek moo tax bu fekkente ni léegi maa ngi ci activité je suis obligé ma tox pour bañ a nelaw ci ci affaire boobu. d'accord d'accord ak léegi yow conséquences yi nga ci wax nii yëpp nga gis ni li nga mënoon lu bëri léegi mënatoo ko te taxul ba léegi yaa ngi ko di ko dem lan moo tax ba léegi mënoo arrêté. waaw loolu <clears throat> li nga wax ni lu am la. bien vrai que lii nii yëpp xam naa ko mais ba léegi nii maa ngi koy utiliser mais nag ci yoonu bàyyi ko laa nekk ndaxte dama xam ne carrément bàyyi ko yombut. yombut lan mooy jafe-jafe bi maanaam. voilà loolu pour nga mun a bàyyi cigarette képp ku la ne bon lii la walla lii la non man góoma loolu xam naa ni moom décision la mais décision boobu noonu nag. maanaam dangaa war a xeex yow mi ak sa xol xam nga dafa métti mhm. dafa métti lutter contre son âme c'est quelque chose de difficile mhm. moo tax ma ne la dafa métti mais nag tout personne bi nga xamante ni mu nga jël say décision ferme mun nga ko bàyyi sans problème wax dëgg yàlla mun nga ko bàyyi sans problème mais décision bi kese la d'accord léegi parfois di nga faral di gis ay vidéo am ay sëriñ ñu naan tey boo ñëwee man naa la bàyyiloo sàngara wala mën naa la bàyyiloo tux est-ce que yow tamit gëm nga loolu am na wala nit ki moo war a jëlal boppam décision pour bàyyi ko bàyyi ko. boo man moom sama wàllum bopp yooyu noonu ah, am na ñi ko gëm. ñu mhm. wax dëgg yàlla man góoma ko. gëmoo ko daal da nga euh, mhm. boo gisee ma ne la góoma ko dama ci gis ñu bari ñi nga xamante ni jaar nañ ci man mii saa sama bopp jaaroon naa ci loolu. dafa amoon ñenn ñi nga xamante ni dañ doon ñëw suñu suñu zone fële ñu ne ñoom mun nañ ko def nga dem ci ñoom presque yàq xaalis la. ñëpp xam nañ ne que bon yàq xaalis mooy lu gën am importance bi d' abord saa fii nii dem ci boutique bi nga ne leen jaay leen ma cigarette nga xamante ni moom moo lay rey en plus sa propre xaalis tamit nga jëndee ko keneen tamit ñëw mu ne moom mun na la jàppale ci kaw loolu nga jël sa xaalis tamit dem ci moom mu nekk double perte. soo accord naa ni loolu. man moom góoma ko décision bi. kon daal sa gëm-gëm yow mooy nit ki nga xamante ni moo koy def moom rek moo mën a jël décision ni da koy bàyyi ba ko. ok d' accord léegi comme euh, ñu ngi jëm ci jeexal émission bi léegi question bi ñu la bëggoon a mujjee laaj mooy tey yow ban conseil ngay jox ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan sa vidéo bii nii te tey xëy na bëggoon nañoo bàyyi cigarette wala ñi ngi ci te mënuñu koo bàyyi ban conseil nga leen di jox. <coughs> bon conseil yooyu noonu li ma leen bëgg a jox mooy de d' abord. maa ngi ñaan képp ki nga xamante ni mu ngi tux cigarette na ko bàyyi lu tax bakkaar yi dañoo bari d'abord ate slogan bi nga xamante ni moo ne la liberté de fumer n'en permet pas de ne permet pas d'enfumer les autres te en plus léegi man mun naa nekk fii nii di tux saxaar si di génn am na keneen ki nga xamante ni mu nekk fële parce que bon c'est un asthmatique odeur bi dem ci moom mu posé ko yeneen problème. dëgg la bakkaar boobu noonu am naa ko. wala keneen ku nekk fële te fekk saxaar cigarette sax neexu ko ma ngi koy déranger dafa bon bon ou bien ma nekk fii ma gis fële benn mbooloo bi nga xamante ni ñoom ñu ngi toog foofu noonu ma bëgg a dem foofu noonu fekkee man tox naa ba pare de mais cigarette moom. boo ci tuxee rek foo munti dem affaire bi day xasaw mm-hmm. ma nekk ci ñëw fekk maa ngi leen di déranger ñoom ñu ñu ma wax ne carrément maa ngi leen di déranger loolu tamit bakkaar la premièrement bi lii laay wax deuxièmement bi képp ki nga xamante ni newoon na nekk que cigarette du def ci yow comme effet bi nga xamante ni le faible sexuel da koy def man wax naa ko man je le prouve et puis j'ai filmé de 2012 à nos jours xam naa carrément lu nekk foofu noonu instant bii je ne suis pas un étranger à la cigarette da koy def donc <clears throat> boobu tamit dafa rusloo nekk nga dem ci benn kër nga ne may leen ma seen doom bi moom mu bàyyi àdduna bi yépp mu ne yow lay topp mu dem ci yow fekk yow mënoo ko satisfaire de grâce de grâce nañu xalaat li nga xamante ni nekk nañ di ko def lii c'est pas une obligation c'est pas une obligation képp ki ko jéem rek mun na ko def kon nañ bàyyi cigarette bi d'accord donc ñu ngi lay jaajëfal ci leeral yi am solo yooyu nga def donc di la bàyyi leen nga tàggatoo ban moo ngay wax ñi nga xamante ni si ñoom ñooy suivre chaîne bii di li xew TV donc nga tàggatoo rek ci gàtt <coughs> bon maa ngi leen di jaajëfal d'abord en mm-hmm. premier lieu képp ku ko gis rek maa lay jaajëfal di kontaan ci yow en plus bon ñi ma ñi nga xamante ni jot na leen neex alhamdulilahi rabbil alamin képp ki nga xamante ni namit tamit nag laal naa ko ci tuuti rek ñaan naa ko jégal ndaxte adduna bi moo mel noonu quoi da ngay def dara nga foog ne ko bon ci lu baax nga nekk fekk ñeneen ñi yaa ngi leen di laal mais nag man loolu laa bëgg bëggan véhiculer message bi tout simplement bëgguma ci laal kenn nag képp ki nga xamante ni moom tooñ naa ko li gën a tuuti rek ci wàllum cigarette bi maa ngi jégal mais nag boo leen xoolee tamit yéen tuxkat yi li ma jiitu ak ñi ma jiitu képp ki nga xamante ni xool nga bu baax fekk yaa ngi tux da xam ne carrément li ma la wax ni ce ne pas des tricas c'est une réalité absolue bépp tuxkat xam na ni carrément li ma wax fii nii am na donc nañ ñaan yàlla ñun ñëpp ñu bàyyi cigarette bi ci emmerdant surtout instant bi nii xoolal cent francs excellence ñu jaay la ñett ñetti cigarette ñetti cigarette pour cent francs CFA avec le Marlboro cent francs pour ñaar c'est emmerdant c'est emmerdant avec le tout de chômage qui règne actuellement là dans le pays hmm? bon bien vrai que nous disons que chaque jour nous sommes pauvres mais ñun tukkat yi ñun ñoo nekk fii nii di gën a appauvrir yi nga xamante ni suñu propre famille dañ ko xoolaat bu baax lu ñuy def ndaxte instant bii nii mun naa yor fii nii benn téeméer ci biir kër gi dépense bi manqué damay jël téeméer boobu noonu ma xaaj ci digg bi 250 bi boobu noonu dama koy fas yéene cigarette beneen 250 bi kër gi ma jox leen bu ñu lekkee ñoom la bu ñu lekkul tamit xayrun man l'essentiel naa. mun a satisfaire sama bopp rek ci wàllum cigarette bi fekkee maa ngi fii nii di di xiif donc ça n'a pas de ça pas de sens nañ xoolaat bu baax lu ñuy def. d'accord donc Boubacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal aussi tamit yal na la yàlla may kàttan ba nga mën koo bàyyi. ok merci. ok loolu la woon yow tamit maa ngi lay jaajëfal monsieur Fall. ok merci. loolu moo gënoon am solo. d'accord merci